gan gi Mamadou Mbodj Diouf bokk ci bureau politique bu parti socialiste ñu ngi lay nuyu. fay naa la soxna Fatou. ñu am mbégte dalal ci réew mi FM euh, tey euh, alors euh, tàmbali waxtaan bi nag ak gouvernement bu bees bi président Macky Sall taxawal samdi bi ñu weesu yow ban jàngat nga njëkk a def ci bile gouvernement. jërëjëf soxna Fatou di réew mi FM yëpp. Mhm. ci déglu bi. Euh, balaa ma dugg ci euh, analyse bi ngay bi may woo noonu. Mhm. dama bëggoon d'abord féliciter ministre yu yu bees yi ak ñi nga xamante ne dañ fi nekkoon ñu reconduire leen. mais surtout aussi féliciter le président Macky Sall. Euh, par rapport à cette réponse bi nga xamante ne tontu boobu nga xam ne indi na ko euh, bi ñu génnee ci élection législative yi. Euh, li ma mën a wax euh, mooy di féliciter en plus euh, suñu ñaari ministres yi suñu camarade Serigne Mbaye Thiam bien sûr ak Alioune Alioune Ndoye li ma mën a jàpp mooy mën nañ gis ne wala mën nañ am jàngat ne gouvernement bi da di gouvernement boo xamante ne liñ ci mën a jàpp mooy dañu bëgg a wéyal li nga xamante ne moom le président def mu doon loo xamante ne peut-être ngëneel la Euh, à travers bilan que loolu ñu wéyal ko euh, gën ko mën a fësal que nit ñi teg ci seen bët mais surtout mu jëriñ askan bi mm. donc euh, foog naa ne looloo tax ñi doon xaar mu indi indi rupture par rapport ak li nga xamante ne moom moo fi amoon maanaam peut-être ubbi wala gën a yaatal ci opposition bi war a nekk leen leneen ak ci leneen te mu waroon doon ay mesures politiques yoo xamante ne peut-être doon dañ ko xaar ci moom dès lors que Euh, jàpp nañ ne certes coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne président Macky moo ko jiite. Euh, gagné na élection locale yi mu ëpp commune yi mu yi mu yi mu gagné. gagné na aussi élection législative yi mais xam nañ ne euh, majorité bi coalition bi am majorité bi ñu am majorité relative la. Hmm. maanaam soo jëlee lii coalition bi am nga méngale ak li nga xamante ne opposition bi am na am na ko pratiquement ñoo neexoon nañ donc loolu su amee nit ñi liñ doon xaar bien entendu moo di mu teg un gouvernement politique mais ci li gis ak jàngat bi nga xamante ne am naa ko. Hmm. loolu doonul loo xamante ne euh, moom mu gën a soxal président. ci li ma gis mooy président li mu jàpp moo di ne def na bilan boo xamante ne ku ci nit ku nekk sénégalais bu nekk teg nga ci sa bët macha allah bilan bi ci infrastructure yi ci sociale bi ci wa ci fànn yëpp. ku xool gis te euh, vraiment li ñuy gis aussi neex na xool kon loolu yëpp su amee malgré loolu ñu dem élection législative ñu gis résultat yi demee noonu la doon xaar wala mu ca mënoon a xaar. Hmm. su fekkoon ne rek li mu réalisé euh, feeñ na ci résultat élection yooyu sénégalais yi won nañ ko ko comme loolu gisu ko moom dafa jàpp ne xëy na am na leneen loo xamante ne peut-être moo tax ba résultat yi mu doon xaar amu ko te leneen loolu nag. mooy li ñu naan demande sociale mooy li nga xamante ne moom la askan wi di xaar ci wàllum seen i dundin ak seen i nekkin bés bu nekk donc loolu euh, wuute na ak lu bëri ak euh, ñi nga xam ne da doon dañ doon xaar mu teg lu mel ni gouvernement majorité élargie wala gouvernement d'union nationale ak leneen ak leneen euh, monsieur le président de la république ak coalition dañu jàngat résultat élection yi ne li wóor leer mooy suñ demee ba am résultat yi nga xamante ne bokkul ak ñun lañ doon xaar c'est parce que xëy na am na Sénégal lu doon xaar te gisuñu ko évidemment mais ñu ñu ne mhm. njëg bi dafa yokk njëg bi dafa yokku mm. euh, te loolu ñun xam nañ euh, ñi nga xam ne seen seen seen xam-xam màcc na ci wàllum koom xam nañ ne njëgu transportu marchandise bi sur le plan mondial dafay yokk mm. mooy fret dafa yokk bu baax mm. loolu moom moo impacté Euh, coût de la vie mais du raison pour nga ne loolu comme xam naa li tax rek nga toog ne yàcc yàccaaral. d'accord léegi léegi monsieur Diouf waxtu bi daf ñoo xaw a njatt si si si olof bi dañoo xaabaabal sànq euh, li ñu bugg a xam mooy lan moo ñuy wan ci gouvernement bu bees bii ne président Macky sàll soxlay askan wi nga fi lim nii moom la bugg a saafara est-ce que am na tey ay nomination ay choix yoo xam ne dafay wane ne moom mi ngi jëm si saafara yooyu jafe-jafe ndax am na ñu jàpp ma dëxëñ ko ci ne euh, gouvernement bi gouvernement troisième mandat donc la ndax bu ñu xoolee dellu si ku mel ne Ismaïla ku nekk xam ko si défendre lu ni mel également ni euh, peut-être mun nañu mun nañu defante politiquement mun nañu xuloo mun nañu défendre yenn position yi Mame Mbaye Niang ak ñeneen soxlawul may lim ñëpp lan moo ñuy won ne nekkul gouvernement troisième mandat et que gouvernement faj aajo yi nga fi lim la. waaw nga mooy li ma doon wax sànq rek foog naa ne demande sociale bi moo gën a sukkal. ne lan moo ñuy wan ne euh, demande sociale bi ngeen bëgg a indi réponse mm. xam nga xam nga mbir mi nekkul ne rek euh, da nga naan lii tax damay teg ci baaraam ci lële. Mm. mën nañ raisonner à contrario. maanaam su fekkee ne lii am na ñu constaté euh, lan moo amul ba tax peut-être mën a expliquer loolu soo xoolee aussi ci gouvernement bi man dama naan li tax c'est pas un gouvernement politique parce que nga wax noonu mooy un gouvernement politique mm-hmm. moo di ne autant am na ñoo xamante ne des ministres qui ont gagné gagné nañ ci seen i gox goxaade te terewul ite nañ am na ñoo xamante ne gàññewuñ bàyyi nañ leen am na ñu bees ñoo xamante ne aussi soit gagné nañ soit gagné mais ñëw nañ dugaat ci biir gouvernement mais loolu tekkiwul ne rek gouvernement bu nar a faj soxla yii nga filim la de. mais mais bien sûr. non non mën naa am yeneen raison. Hmm. gouvernement bi c'est un gouvernement euh, disons de compétence. Hmm. parce que euh, continuité laa wax. d'accord continuité laa wax. Hmm. soo xoolee soo xoolee ndox ñi nga xamante ne ñoom la ñu ñoom la ñu tabb. bu ci nekk ndomba tànk bañ ko jox xëy na euh, am nga ci expertise. soo mënoon na nekk un gouvernement politique ñu gis ne euh, un tel gagné na senn donc forcément dafa war a jàll un tel nekkoon na fi ministre gagné na dañ ko war a maintenir loolu amul. d'accord comme loolu amul nag. Mhm. mooy wane ne li nga xam ne moom moom moom la jiital mu doon une priorité mooy que ñu xool ku ci nekk la nga man ñu yaakaar ne mën nañ nga ci secteur boobu ñu teg la fa. d'accord mooy un gouvernement de compétence. Mhm. de consolidation d'un bilan. président de la République dafa def un bilan bilan boobu nag la bëgg ñu fësal. pour loolu nag foog mu am ñoo xamante ne am nañ expertise seen xel euh, màcc na ci secteur yi bi ñu leen dénk pour ñoom ñu mën a fësal bilan boobu. Mhm. donc loolu euh, pour parti parti socialiste remaniement bi yëngalaat na ko ndax dégg nañu ña doon coow sax bala ñuy yegsi ci changement euh, gouvernement bi ne PS non seulement quota bi ñu ko jox ndaw na waaye bëgg nañu ñu changer ministre yi nga xam ne ko représenté donc dellu si particulièrement Serigne bay Thiam dafa jur tey ay frustration yu bëri ndax ragaloo ngeen demaat ci beneen tàqalikoo ak seen ay yeneen camarades euh, te dara lu ko waral lu dul ànd bi ak APR pou ne pas Benno. Euh, foog naa ne ñaar ba ñett nit la ñu dégg ñu wax dégguñu parti socialiste wax euh, Serigne Mbaye Thiam ak euh, Alioune Ndoye nekk ñaari ministres yi nga xam ne ñu représenté ci gouvernement bi parti socialiste moo leen taboon du ñoo xamante ne dañ leen for wala dañ leen jeex dañ leen taboon ndax seen i compétence ku ci nekk ministère ba nga nekkoon def nga fa lu mucc ayib kon su fekkee ne dem nañ ba ne dañu nekk dans la con dans dans la continuité parce que man li ma wax dafa leer pour leer laa ko teg Euh, dañu bëgg a wéyal li nga xamante ne moom moo indi bilan bu taaru bi nga xamante ne moom le président Macky Sall def donc loolu expertise boobu pour mën a pour pour c'est-à-dire am nañ ko déjà teg na joxe nañ ay nit yoo xam ne am nañ compétence mm-hmm. donc loolu pour mën ko consolider il faut que ñooñu ñu permettre leen ñu continuer ñi nga xam ne nag dañuy wax man dama jàpp ne xëy na ay jigatkat lañ xëy na ay nit saytaane lañ donc euh, euh, te c'est pas la première fois et c' est c' vraiment lu ñuy lu ñuy naqarlu la lu ñuy métti la parce que man su ma gisee ku mel ni Alimane moom moo fi toog ba ci ku ndar kam amul lu mu taggul Euh, suñu camarade Serigne Mbaye Thiam. waaw mais loolu tamit wowul tamit su su ñëwee mu wax ko parce que xel tamit nangu nañu changé ku mel ni AFP par exemple yéen a àndoon président Macky depuis 2012 gis nañu ñu ndi changement ci ministre yi leen représenté à la place de Alioune Sarr ils ont mis Pape Sagna Mbaye par exemple euh, changement tamit dafay dafay baax yéen saay ma ne la ci AFP du ci du parti socialiste hmm. parce que ñun aussi de hmm. changement boobu ngay wax noonu soo ko tuddoon tey wala ñun ñu bëggoon ko parce que su boobaa ku ci nekk di nga sa sa sa loxo ne man maa ko gën a mérito hmm. te comme fi mu toll nii man je pense que euh, ni ma ko waxee bilan la boo xamante dañ ko war a consolider euh, presque euh, président Macky Sall dafa war a jeexal mandaam bii ñu nekk kooku indi ñoo xamante ne peut-être expérience ba mën na am ne xëy na tollul noonu wala peut-être compétence ba sax mën nañ ci douter loolu mën na indi rupture boo xamante ne peut-être ñun suñu taxawaay biir coalition bi mën na cee sooxe. kon a nga bëgg a PS bu weesoo Alioune ak ak euh, Serigne Mbaye Thiam yi amul ñeneen ñoo xam ne mën nañu ko représenter dignement dans le gouvernement. mais bien sûr man je pense ku ne parti socialiste xam nga ne borom yi kàngam borom xam-xam rek a fa am mais comme coalition bi dafa yàqu. Hmm. majorité présidentielle la ñaata parti ñoo ci nekk. su fekkee ne parti bu nekk daf ci am war am ñaar ba ñett mais ci ñaar ba ñett ñooñu nga bëgg a ci benn parti tànn ba foog du métti. Hmm. donc looloo ñu ne le fait que ñuy toog di changer alors que dañu nekk dans un processus boo xamante ñu bëgg a consolider un bilan mieux vaut que ñu maintenir li nga xamante ne ñi nga xam ne ñooñu fa toogal. Mhm. donc encore une fois may wax naan ñiy wax loolu ay dingatkat lañ parce que ñun suñu priorité ñu bi ñun biir parti socialiste nekkul leneen lu dul que ñun ñu xoolaat suñu bopp saytuwaat parti bi parce que parti bi ni ñu koy yoree neexuñu militant bu waxal yàlla waxal dëgg xam ne. suñu direction parti bi soo na. yéen yéen a ngi bañ yéen a ngi bañ ko tudd Serigne Mbaye Thiam te yéen a ngi euh, nekk aussi ci ay tànk Aminata Mbengue Ndiaye di ko gor ndax buñ la déggee. dafay mel ni yow. ya wax ñi waxee ni yow da ngeen bëgg rek Aminata Mbengue Ndiaye dem. justement justement soo gisee turu Aminata Mbengue Ndiaye rek man foog naa ne euh, peut-être. waaw euh, mais soo waxee direction bi quand même c'est elle qui la symbolise waaw man sa bopp ci direction parti bi laa bokk. Ah. man ci biir bi laa bokk. d'accord xëy direction bi. am mais mais yéen intérim bi ngeen di joxoñ intérim bi ngeen di joxoñ intérim bi muy assuré depuis bi Tanor dëddoo moom ngeen di joxoñ ni mu yoree parti bi ni mu yoree ni mu yoree parti bi léegi pour aller vite Aminata Mbengue Ndiaye ni mu yoree parti bi dale na neexul wala lan moo ci sooke mais loolu kay doonatul loo xam nañ koy naatable loolu war leer na ñëpp hmm. parti socialiste dundatul parti socialiste dundatul loolu lañ wax Euh, est-ce que du seen ànd ak bennoo moo leen rey est que du seen ànd ak bennoo moo leen rey parce que 2019 par exemple lu toll ni élection présidentielle PS bokk ci est-ce que du loolu véritablement moo leen gaañ euh, non loolu choix la woon rek hmm. choix politique la woon euh, parce que ñun dañu jàpp ne bennoo bokk yaakaar ñun dañ ci am wàll bu rëy du dañu ci invité donc suñu investir un candidat dès lors que même su dul socialiste bu nekk un candidat de Benno Bokk Yaakaar je pense que loolu euh, mënul doon lu ñu mën a gaañ. en tout cas ànd bi mu ngi leen di bëgg a li militants yi jàpp li hmm. militants yi jàpp nekkul dañuy xaxar kenn nekkul ne dañuy tooñ kenn li ñu gis mooy suñu parti instance yi réunir te loolu nag su amatul euh, décision bi wala prise de décision bi au sein du parti dafa sooxee donc loolu wax ko nekkul ne da ngay dëngit di nga Ndiaye hmm. wax ko nekkul da salteel wala di tilimal deru nit mais wax dëgg bi nga xamante ne moom la militant yépp di xalaat ñun dañu bëgg un parti boo xamante instance am dañuy réunir bureau politique di réunir chaque euh, quinze jours euh, secrétariat exécutif national di réunir chaque semaine loolu bañ ko gëjee am yàlla xam kañ la hmm. un parti une organisation nag munoo euh, le pouvoir de décision li ko ŋànk du ñu gisee du ñu waxtaan du ñu toog nga bëgg yaakaar ne parti boobu dina def résultat wala dina jëm kanam loolu problème la day donc encore une fois pour euh, peut-être daaneel dama naan nañu delloo ci xel ñun waa parti socialiste yi nga xamante ne moo gën a doon suñu mébét mooy ñu jëlaat en main suñu parti mooy renouvellement yi nga xamante ne démarré woon nañ ko nañ ko jeexal jàmm tabb secrétaire général bu bees mu indi ay orientation yu bees euh, wan ñu fan la parti bi war a jëm parce que échéance yi bari na te macha allah bëgg na suñu taxawaay gën a fës ci biir landerneau politique. Mhm. ñu loolu lañ wax. d' accord wax nañu ne yéen a ngi liggéey si ay retrouvailles am na am déet. Euh, retrouvailles euh, loolu c' est une dynamique maanaam da loo xamante ne duñ ci mos a jógee parce que à partir aussi euh, bëgg na chaque fois di gën di yaatu bëgg na aussi surtout su ne dafa bëgg conquérir pouvoir bi par lui-même que mu nekk ci option boobu. mais li may wax rek mooy retrouvailles peut-être fi ko nit ñi de xalaatee ñun suñu bët weesu na foofu lép képp kuy socialiste muy progressiste yi nekk AFP muy waa renouveau démocratique muy ñeneen ak i ñeneen suñ ne retrouvailles ñun ñëpp dañ leen dugal ci biir parce que ñëpp biir PS la ñu nekk mm. suñ demee bay ubbeeku foog naa ne ñun ñëpp ci ki nekk nañ la tàllal loxo ñu toog nankandoo euh, li nga xamante ne noonu lañ bëggee yoree réew mi Sénégal yi nangul ñu ko su boobaa foog naa ne Euh, retrouvailles yooyu ñu namm dinañu amal njëriñ. mais ubbeeku. Mm. pour indiwaat ay coow indiwaat ay xeexoo ci roonaayo ci biir parti bi loolu tax ñoo wax. Mm. donc loolu aussi war na leer. d'accord dañuy ubbeeku. Mm. mais ubbeeku mu gën a yaatu mais ubbeeku aussi. pour gën a mën a ñoŋal suñu parti gën a ñoŋal en fait socialisme biir Sénégal. loolu ñu jërëjëf Mamadou Mbodj Diouf waxtu wee ñu xaw a dab moo tax xëy na sànq. li ñu euh, waxoon yëpp mënuñu cee dellusiwaat waaye euh, yoon yemul si benn. amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu mi FM tey fàttali ni yaa ngi bokk ci bureau politique bu parti socialiste. merci.